merci beaucoup madame la présidente madame la ministre ñu ngi lay di sa collaborateur directeur du budget collaborateur madame Bach, madame Dem ak Nous sommes nga nous ne ci liggéey bi sa kenn ku madame la ministre yow waxal la dafa sommes ndax yaay de bi man ministère li nga ministère, def yow yaay ki nga une solution toujours yow yaay jàppale jigéen ñi yaa leen yërëm yaa leen fekk fa ñu nekk ànd ak ñoom ci naaju tàng bi ak ci poussière beek ci ran ranran yi di xool di luqati lan mooy seeni problème yow waxal la day yomb taxaw fii tey wax sa liggéey dafa yomb parce que say say réalisation dafa concret kenn du la ko sosal kenn du la ko jiiñ yaa ko def yaa jël sa budget boo jigéen ñi di ànd ak ñoom foo génnee ñun ñëpp dañuy sawar ndax dañ ñoo boole ci li ngay def dañ cee boole jigéen ñi Sénégal xooloo député xooloo marchand am jigéen ñi nekk ci marché bi jaay xooloo kenn foo dem fu ne rek boole na ci ñëpp kon waxal la dafa yomb daal le département de Linguère ñëw nga fa ànd ak ñun xool suñuy problème bàyyi ko matériel bu bëri dig ñuy financement ba pare andi ko ba pare nag di toujours di saytu fan moo def loolu nag mooy gouvernance nit ki dañ lay dénk dara nga yéene koo joxe am fulla ak fayda doxal ko ba ñëpp naw la dangaa am fulla ci li ngay def parce que liggéey da ngay fexe ba yow ñëpp naw la ci li ngay liggéey loolu la mën jox muy dërëm muy ñaar dërëm dangaa war a fexe ba ñëpp ràññee la ci li ngay def yow ministère bi nga nekk ràññee nañ la ci bu baax andi nga ko loo xam ne ñëpp xam nañ ko muy toujours yaa ngi fexe nit ñi gis seen bopp ci li ngay def li nga ci wax ay 95 pour cent de man dox naa guddi woowoo ma dama laa romb nga nekk ci mbedd mi di génn xale yi ci mbedd bi ànd ak sa équipe def ci lu mucc ayib Sénégal moo neexut a defar da ngay def lu baax keneen nekk ca pegg ba bëgg koo xajamal waaye say ko gis ñu ngi lay ñaanal bu baax nag ndaxte yow bi nga ñëwee ci bopp ministère bii fi la nit ñi xamal fast track maanaam wax tey suba nga def ko yow yaa ko def madame la ministre yow yaay wax tey suba nga def ko yow yaay jigéen ñi ñoo ñëw ci yow tey wax ak yow bu suba nga woo leen ba ñëw ànd ak ñoom ci seen département yi di régler solution la ministre nag ñu ngi lay ñaanal ñun département de Linguère li ñu waxoon yépp yaa ngi ci bërki démb laa la woo ma mu département de Linguère fàtte wu ma maa ngi ci te incha allah budget bii ñëpp danañ gis seen bopp lu raw lañ amoon li ñu am ci ministère de la femme dañ la koy gërëme financement yi jigéen ñi jot dañ la koy gërëme accompagnement bi dañ la koy gërëme man duma gërëm kenn ku deful dara waxuma ko ma deful dara ku deful dara ndax kuy def ci Sénégal ngay def muy sama département ma gis ko gërëm la ci sant la ci sant ci président de la République ñi nga xam ne moo la alloué sa budget te loolu nag wax yàlla ñun dañ koo gis ay femmes développement lañu ku kuñ gis suñu da suñu département bi suqaliku rawatina jigéen jàmbaar yi nga xam ne moo nekk sama département ñun ñun suñuy jigéen dañoo yaatu ñu ngi ci transformation yi ñu ngi ci meew mi ñu ngi ci céréale bi ñu ngi ci càmm gi kon boo ñëwee accompagner leen ñuy jigéenu Jolof ñoo ma jox seen gërëm ñu ngi lay sant di ñaan nga dolli leen te xam naa ne nag danga ñu dolli ndax loolu moom moo tax ñu yokk sa budget madame la ministre maa ngi lay sant di la gërëm wasalaam